mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu sell asalaam wa rahma wa barakaatu nuyu bu islaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bañ sante yàlla julli sinante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur te ñaanal réew mi kilifa diine yeeg kilifa aaday ñu leen di ñaanal jàmm ñu nekk soptaal ba suñu borom fëgg seen bopp waaye ñu nekk sa prison suñu borom génne leen ba ñu ba leen fay delloo lu jiitu loolu dañuy tuub tuub gi ñuy tuub nag mooy toog gi ñu si kaw ndax kilifa gi dalal du war ma si ñun ñuy toog si kaw ndax ñun loolu la ñu xamee ñu ngi koy tuubal bu baax a baax a baax di ñaanin moom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñu fas yéene sekk ak waxtaan koo xam ni kenn la si waa Mbuso bi muy Serigne Sam Mbuso euh, lu jiitu loolu lañ koy bàyyi mu nuyoog téléspectateur 7TV ñu doog a ak moom si waxtaan bi sëñ Sam ñu ngi lay nuyu. asbillahi min shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu nuyu àdduna jëpp di nuyu Sénégal ak ñi ci ñu ngi leen daal ñëw ngeen seen kër ndax taalibe sëñ Tuubaa ngeen ay jullit ngeen ngeen ñëw ci kër sëñ Tuubaa kon daal ñu ngi leen daal baax na ngeen toog ngeen yaatu ñu waxtaan rek te waxtaanee loo xam ne nii luñ ca luñ ca xam ñu tontu ko waaw. jërëjëf sëñ Sam luñ ci xam ñu tontu ko incha allah de la laaj laaj question yoo xam ne moom xam naa ne lépp ngay tontu si jàmm bu soobee yàlla eh, bi ñuy jiital mooy kat mooy sëñ Sam Bousso. Sam Bousso daal. Samba Bousso tudd di di taalib sëñ Touba waa bu góor tudd sëñ Abdullah sëñ Abdullahi sëñ Afim bokk ak soxna Awa Bousso ndeeg bàyyi moo ko jur sëñ Bousso bi di seen baay sëñ Bousso bi bokk ak soxna Jaara ndeeg bàyyi man maa ngi nekk daal doomu daar boo xam daal maa ngi maa ngi jóge ci Bousso bi ak ak ak ak ñangeen Afe ak si ak Mbàkke yii daal mu tey si commune diggante Mbusoobe ak Ñangeen ak Mbàkke tey suñu doon bëgg a xam diggante Mbusoobe ak Mbàkke lan lañ si mën a xam dañ ci mën a xam ñoom ñoom ñoo bokk ñoo bokk men maam ñoo bokk dëkk Jolof biñ bokk dañoo bokk dëkk jóge Jolof ba noppi bokk benn maam léegi nag jaxasoo ñu ci bari ci ñi sant si ñeen ñenn ñi seen yaay ña ngi sant mooy suñu ëpp des si ñu ngi la yaayam ñu ngi sant maam aw Buso mi bokk ak suñu yaay fi mu jur sama baay seen seen yaay ña ngi la sant man sama yaay ña ngi la sant sëñ Tuubaa Mbàkke la sant moom Mamour Diarra ñoo bokk ndéeg baay euh, ñoom it soxna soxna soxna soxna soxna Diarra ko jur sant Buso kon nga xam da nga xam kon Mbàkke ak Buso leen boole nga xam kon ma ñang ak loolu ba pare euh, Euh, Amadou Farimata ak Demba Farimata ñoo ñoo ñoo bokk lépp kii jur maam El Hadj Malick kii jur ma maam Ousmane mu jur maam kii jur maam Mor Anta Sali mu jur Sëñ Tuubaa nga xam kon léegi jaxasoo nañ daal dañoo nekk dañoo dañoo bokk seen bokk fañ jógee pare yàlla boole leen jaxasoo ñuy ñuy dëkkalante bokk gën a jaxasoo benn lañ daal benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk ci sàmm waaw. bu soobee suñu bëggoon xam bu soobee nan lay doxee si yoon wi. nan lañ ko nan lañ ko mën a xamee. mosoo bi day moom yomb naa xam ndax ñoom koo ci gis lay cosaanam dëgg mooy borom mi xam-xam lañ ndax loolu lañ loolu la dund dañ fee fekk daara di doomi daara ba pare di dundee daara nekk ñuy jàngale ak jàng looluy seen cosaan loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy seen mbir. boo ñëwee Touba gi liñ leen di gën a ràññee mooy diine ji rek eh, boo demee ci ci jàkka yi ba ci jumaa ju mag ji ñoo ko jiite yoonu mooy it daanaka jumaa ju mag ji fi natt ci nekk ñooy natt xibla ba mu tàmbalee ca eh, suñ maam ba suñ bàkk bésu moo nattoon jumaa ji moo natt njaareem ci loolu it da fee fekk ndax suñ bésu bi loolu doon dund ndax ndax baayam suñ bésu bi mi ngi xam ne mook soxna si soxna jaara ñoo bokk ndeeg baay moom ci jamono ji mu fi jóge moom moo nekkoon xut bu samaanu jamono loolu sax beneen affaire la boo xam ni ay leer yu bare ci daal ci ci mbir ci màggal gi li ko laaj ne mbusoo ah, moom la ci participer mu jógee suñ mbusoo bi fii daal busu daal foog fekk ak xam-xam lay dund alxuraan ak diine loolu daal mooy biir mbusoo bi bu ñu àggee ci leen rek lu ma ci mën a wax it ma ma ma wax la ko tey jëmm ju tedd jooju nga xam ne mooy waajuram mooy waajuram bu jigéen ci suñu si moom ak jaar-jaar yi nga xam ne jot na koo def mën nga ñu siy wax. nit ñi dañoo xamul rek man danaay seetaan yu bari ñuy wax di invité ay ku ne invité ne te gis nga yontu saari salaam mooy ngeen ñi mi def waaye dafa bokk. bañ bañ nañ ko sax dañ ne. boo xamee juróom-ñaari maam sa yaram sa yaram sa yaram la sa xam nga kon maam bu koy wax mbokk la kon sëñ Tuubaa dafa am bokk dafa am bokk te gis naa fi ñuy def plateau yu bari di di invité ay nit di leen laaj ñuy wax waaye am na ñoo xam ne leen woowuñu leen laaj leen de ci ci yoon wi te tegg nañ aw yoon ndax gis nga danaa la wax loo xam ne gis na Sëñ Tuubaa bi muy liggéey liggéeyam bii kenn benn mbindeef bu jàppale amut nekk na ci ba ñu bis benn yoon la ma gis la ma gis benn mbindeef bu participer ci liggéeyam bi kenn la muy soxna jaar naa la ko wax léegi bu yàlla gis nga sëñ bu sooy moo bokk moom ndey ak baay sëñ Tuubaa bi mu nekkee fii ci Tuubaa gii nekk fii ci jàkk ji ci Daaru Xudoos dafa def uh, xalwa yontu saa resam da ko faa feeñu ba mu ko feeñu ànd sëñ bi xool waa ahlu badar xeemeem bokk ñoom sëñ bi ne ko sëñ yonent bi sant ko ci liggéey bi muy liggéey yàlla ak ak liggéey bi mu ko liggéey yëpp ak ñoom taxawee ci dundal ci dundal diine ci àdduna ay far farloom yëpp daal mu sant ko ci mu noppi Sëñ Tuubaa xamal ko ne ko dama bëgg bokk ci ñi ànd ak yow foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ñii nga bëgg bokk dafa nekk ñoo xam ne ñu jàll lañ kuréel bu jàll la ndax bokk ñoom jafe na ndax dañoo tuuroon seen deret ci lislaam te bari na ñu ñu toll fii nga toll yow gis leen bëgg bokk ñoom natt bañ leen war a teg pour ñu bokk ci day jafe te buñ la tegee natt bu fekkee ne mënoo ko mënoo mënoo ko assumer maanaam def ko daraja boo amoon suñu boroom dañ lay dañ lay dégrade da ngay wàcc la nga amoon sax da koy ñàkk te yow fii nga toll yow muy sëñ Tuubaa liggéeyal ngay yàlla loo xam ni suñu boroom liggéeyal ma ko man Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgguma nga dugg ci loo xam ne nii day day day yàqu te fi mu toll nii daanaka ñeent fukk nga at nga toll waaye juróom-benn weer rek moo tee nga nekk xutbu samaan daan ne ko yonent bi sëñ Tuubaa ne ko daal moom daal lu maa a demee bu fekkee natt bu ñu may teg la te roogi at attan ko baax na amut leen mooy daw ma yàlla garanti lu roogi rek mën nañ ma koo teg bi loolu amee yontu bi ne ko léegi juróom-benn weer yi nga xam ne moo tee nga nekk xut bu samaan na maa ñaan suñu borom tey ñu bis nga tey nga nekk nga jot garaat ko xut bu ko lépp daal sama bët jël na loolu ah yontu bi tegal ko nag ay kii ay condition bu njëkk bi ne ko dëkk bi nga nekk muy Tuubaa sun boroom daf la ko aaral ba lenn luy lore du la fekk kon fee génnoo ko duñ la teg natt bi ndax natt bi daanaka lépp ay métti la beneen ba ca topp mooy sana jaay suñ mbusoo bi suñ boroom da koo rus ndax mooy xut bu sama jamono suñ suñ suñ boroom da koo rus ba du nekk ci kaw suuf mu lay teg benn nattu te lii ma wax nii si bilaat nettal na ko fii ci jamono xalifaam ñëpp ñëpp ñëpp yi dégg ak màggal màggal kooku tey mu doon ko woote léegi bi loolu amee yonent bi sëñ Tuubaa ne ko baax na léegi daal di génn moom dem sañ ci Mbàkke Bari ba mu demee Mbàkke Bari benn weer la fa def jëm ñaar nijaay bi sëñ Bousso bi génn àdduna ndax sëñ bu bi moom ci li ma la woon a wax moom moo doon jàngal sëñ Tuubaa moo nekkoon nijaayam bokk soxna si ndey ak bàyyi moo nekkoon sëriñ mi nag ndax sëriñ ñëpp a koy am ndax yoon sallallahu alayhi moo gën ñëpp ba tey te suñu borom da ko ci alxuraan ne ko defal Seydina Ibrahima muy sa muy sa moo tax wasiila mënut a ñàkk ci ku bëgg a àgg ci yàlla waaye nag na fekk nga def ko ci koo xam ne nii àgg na ci yàlla te mën naa àggale ci yàlla loolu lépp së sëñ bu sooy moo moo moo ko faroon ci sëñ bi sëñ bi bi bind ci moom ay xasida yu bari xasida tagg ko loo xam ne mosu ko wax ci doomu aadama moom moom sëñ bi wax ko nijaayam léegi nag bi yàlla dogalee bi sëñ bi demee mbakk baar bi mu defee ay ñaari rek sëñ Bousso bi génn àdduna ndax bëgg na xam na ne sëñ bi dafa war a liggéey te bu liggéeyiwut nit ñi duñ jëriñu àdduna ak alaxira mu jaral ko mu bàyyi dundam dem boo ji suñu kon màggal gi liggéey bii sëñ Tuubaa liggéey ba am lii mu am bu Bousso bi da cee am da cee participer lu rëy loo xam ne ñëpp nañ ko xam léegi bu loolu amee màggal gii tey bi nga nga xam ne sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa la ko tuddee sant gi bàyyiwul ba dem ba am la mu bëgg ba muy dem xam ne mu ngi liggéey waaye xam ne day ñëwaat te xam ne bu ñëwee ñëpp danañ jëriñu ca commencement nattu ba loolee lay sante suñu borom moo waral lii loolee ba mu ba mu demee ba ñëw ba ba yàlla dogal mu bëgg a jàpp bisu cant gii dafa fekk suñ Modou buso di sama benn baay suñ suñ Bakki Bousso moom suñ Bousso bi moo mooy waajuram fekk woo na rakam di ñox suñ Moulay Bousso jox ko aw bëy jox ko addi suñ Touba mu fekk suñ Touba njaarim mu ñëw mu ne ko suñ Modou ma yónni lii la ma yónni addi la. sëñ bi sëñ bi ne ko téyel ma ko ba ma ba ma laaj la ko mu téye ko ba ca bis ba sëñ bëggoon a jàpp bisu cant bi muy bii ñu seen gën a suba mu laaj ko ne ko ana gàtt ba mu ne ko bëgg fi mu ne ko ndax mën nga ma koo soppil am am am xar mu ne ko waaw mu ne ko demal nga soppil ma ko demal ci jaba bi mu dee mu fekk fi benn séeréer séeréer bi mu ngi ay xar yu baax waaye séeréer bi moom bi mu xoolee ba yore xam ne ne bay wii ci yàlla barkeel la bokk xam ne ne tey bari soow ba yu bari soow bu bëri day day jur lu bari daal bàyyi ma laaj bu su ne ko damaa bëggoon nga soppi ma béy wi am xar séer bi daal di ci kontaan ne ko ma soppi nga waaw ne ko amul amul benn benn problème xoolal ci xar mi bu la gën moom mu sa xar ma ca gën jël ko séer bi jóg mu ne ko mu ne ko mu ne ko soppi naa ko xol bu sedd guy ñu ñëwee sëñ bi taxaw ne ko defal loog daal ne ko defar bii mu ngi mel ne man maa koo defar sama loxol bopp ba mu ko defaree ba noppi mu indi ko mu def ko ñetti cër benn bi mu ne ko yótu ma ko sa bàjjan aminte bu so muy waajur suñu bu xaarit benn bi mu ne ko yótu ma ko sa bàjjan awa bu so muy benn bi te kenn ku ne nag la nga xam ne saam ba ko jox da caa boole lu ko lu koy defar benn ba sëñ bi teel ko boppam defaral ko boppam andi ko def ko bernde boppam daane nag bis bi bu jiwatee képp koo xam ne sama mbég sa mbég la képp koo xam ne sab soppi laa ku dib jullit ñaan naa la nga sant la ma seen borom moo indi màggal gi tey yaa ngi dégg bu baax li ma la wax kon màggal gi sëñ Bousso bi dafa dafa bàyyi dundam dem ndax sëñ bi mën a liggéey yaa ngi dégg ñaareel bi traa ngi ci sëñ Tuubaa njëkk a def Bousso bi la jóge muy gàtt ba ñetteel bi ba mu ko defaloo muy ñetti cër ñaari cër yi Bousso bi la dellu soxna Awa Bousso defal benn ba mu dellu mbusoo bi benn bi soxnaa busoo ko defar mu dellu mu dellu mbusoo bi benn bi sëñ bee ko defarul boppam mu dellu busoo bi ndax su ndax soxna jaara dégg de kon dara génnut mbusoo bi màggal gi yii léegi bi bi loolu amee kon nit ñi war nañoo xam ni màggal gi am na lu ko sabab waaye am na ñoo xam ne dañ ciy def lu rëy muy mbusoo bi googu mu tàmbalee suñ mbusoo bi léegi bi sëñ bi nekk ci natt bi lii ma wax ba tey lii ma lii may wax nii lii ma lay wax nii sëñ bi laa nettali na ko fii ñëpp yi dégg band yaa ngi fii bi sëñ bi nekkee ci natt bi bi tubaab yi demee dem dem ba jaaxle dañoo def lu mel ne lu mel ne kàmbu teg ca maral ko teg ak basan ci kaw bëgg mu toog ci nga xam ne bu cooxee bu coogee rek day surux ñu maasal ko benn yoon yàlla dogal ba ba bañ defee loolu rek ba sëñ ba kii rek ba mu duggee rek sëñ bi laa nee dafa am lu ñu sëq loxoom teg ko ci biir ne ko dama liggéey taloo ko boo mu geesoo muy maam jaara waaw kon war nii waxtaan waxtaan neex na waaye nag wax dëgg yàlla war nañoo am leneen luñ mën a waxtaan loo xam ne nit ñi war nañ koo xam lii participer bu su maanaam suñ mbak euh, suñ maam suñ bosoo participer ko ci yoonu suñ tubaab yi ci liggéeyam bii te lépp boo seetlu dafa desuwaat ci mbuso bi la ko sos ak lépp moo tax sëñ Tuubaa ba mu demee ba ñibbisi daf ne mbubb mi ma soloon doon ko liggéeyal yàlla mun ma ko summi fenn fu néegu mbuso bi gis nga ñoom mbuso bi xëccoowuñ àdduna xëccoowuñ alal xëccoowuñ daraja ñoom xamul xamul xamul luy seen ndam jàng jàngale jaamu yàlla dégg nga ak jubal nit leen lu loolu intéressé wu leen ndax àdduna lépp fi am na leen loo xam ne moo gën àdduna te boo seetloo ba tey lañ ñor sëñ Tuubaa la ko ñoroon ci liggéey bépp daf ne woon dama jóg ngir yeesal lislaam dundal lislaam dundal sunu sunu sot li nga xam dafa dafa nar raaf loolee moo ko moo moo indi woon liggéeyam bii ba mu am lii waaye loolu lépp ba mu demet gis nga ñu xam nga ñu koy sàmm muso bi ñoo koy sàmm jumaa yi ñoo koy jiite ñooy jàng kaamil alxuraan yi ñooy natt jàkk yi ñi faatu ñoo leen di jullee kër Sëñ Tuubaa goo dem daanaka ku sotti bu koy jiite ba ci jumaa ju mag ji kon war nañuy waxtaane ku mel ne Sëñ Bousso bi ku mel ne Jaara te kenn koo ci waxtaan rek kenn ko dugg ndax mënoo ci wax kenn koo ci tudd rek ke da nga ne am leen loo daj ci keneen lii daal laa la ci mën a wax ñiy wax nag dañoo war a gëstu di seet waaw ndax sëñ Tuubaa moom mënoo koo wax ci lenn ci ci ci ci jëfam ci mbiram ci àdduna ak ci ak ak ci ak te duggoo ci mosoo bi. jërëjëf sëñ Sam li nga wax lu am solo la muy mbusoo bi li ñuy faral di wax rek li ñuy bëgg a xamaat mooy comme euh, solos màggal gi daanaka lépp dafa aju si si Mboussobé tey ñu ñu seetlu leen dañuy xool waa kër sëñ Fallou jox nañ leen nangam waa kër sëñ Abdoulaye jox nañ leen nangam te dégguñu ko benn yoon comme solas màggal gi dëgg dëgg dëgg mi ngi si Mboussobé te dégguñu ko benn yoon ñu wax loolu noonu si waa Mboussobé. Ah, am na lu leen jox maanaam buñ ne léegi dëkk bi jox nañ ko sëñ Abdoulaye jox ko sëñ Sidi ah, moom sëñ Abdoulaye daan na léegi njàngam alxuraan mi. jox lañ ko wàgg suñu falo moom maamorom suñu fàllu ko yoroon mi faatu mi noppaloo bi mu fi jógee ñu jox ko suñ xabaan moom suñu falo dafa dellu bu soobee dama la lépp luy diina ji mu fara ci yoonu murit bu ñuy rek bu lay dellu ndax dafa nekk biram baatin boo xam ne secret la boo xam ni mutut nekk buñ koy def sax duñ ko xam lan lan mooy diine diine mi ngi commencé ci alxuraan alxuraan kay moom moo ndar kapp diine kon buñ ko jëlee ne sedd dañ ko waa suñu Sëñ Fallou waa kër Sëñ Fallou Fallou aw Bousso dellu na Bousso bi yaa ngi dégg léegi bañ demee ba séddale ba ba ba yii des fi muy njàngum alxuraan mi muy muy muy muy muy imaam yi muy sangam néew yi muy armel yi muy lépp ñu jënk waa Bousso bi ndax it kooku fors la secret la mënut a ñàkk danaa la lu diine loo xam ne ëllëg day jëriñu ëllëg doo leen doo leen ci gis ci àdduna te seenu yëngu it lu jëm ci loolu rek ñoom lañ farale loolu ko jox keneen ndax mbirum sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa mbirum moom day dem ci kanam dellu gannaaw moo tax man lépp luy diine ci lislaam ci ci ci yoonu mooy boo ko seetoo boo ko seetee mbusoo bi ñoo ko jiite eh, eh, beneen bi ñuy tëjee wala ñaar si ay questions yi ñuy tëjee mooy wormaay dëkk bi ñu gis sëñ Mountakha jël eh, ndigal loolu yees yoon lu jox ko Baye Fall yi tey impact dëkk bi lan nga ñu si mën a wax si loolu noonu. sëñ Mountakha moom man li ma wax ci moom mooy dégg nañ fii mu roy leen ci man xool leen ci man la wax dëgg la ndax sëñ Mountakha dafa jaar ci yoon jaar ci yoon moo ko may lii moom tey moo ko jox place bi ndax jaar ci yoon. weesuwut sa bàyyi fi newoon ñëpp nga déggal leen nekk taalibe di leen liggéeyal ba ba kenn ci ñoom ci waajuram yooyu muy suñ Murtala tudd ko doom doomi suñ tuwaa tuddee rek dafa day dafa dafa doy ndam waxuma laa nag nga nekk doom wóor bu ko tuddee la doom ku ma ñu bëree bëri bu ñu fa mosaan jógee muy ay kilifa moom muy moo leen taxaw moo leen moo moo leen moo leen taxaw jébal seen borom gis naa it ba tey ñu fi jógee sëñ mun yónnee ci moom na na dem tax taxaw leen kon moo ab cër la ab cër la ci moom ba mu demee ba gisatul bàyyam yooyu magam yi fi jot a jaar muy suñu Alaaji Baara ak suñu si Axmat lay mii ñoom ñëpp kenn ku nekk dafa topp si ginnaaw teg la fa mu fa la war a teg def la mu war a def lépp loo xam ni kenn ku mel ne moom def ko ci waaw ci taalibe ci ci joxe addiya ci jox la cër bu loolu kenn wérantoo ko kon li may wax naan yàlla du war yàlla du war yàlla ko jox mu delloo ko ginnaaw yàlla ginnaaw dogal suñu borom moo ko may lii tey kon bu ne roy leen ma dafa jaar ci yoon xam ne ku ko topp da jaar ci yoon kon nañ fexe ba dëkk bii nañ dañ ko dañ ko nañ ko delloo worma ji ñu ko war a jox ndax dëkk bi daraam génnul lislaam te sëñ tubaa lu mën a am ci lu mën a am ci àdduna Touba ko gënaloon tubaa moo gënaloon lépp. lu mën a am rek Touba ko gën a lool dëkk bu mu bëggoon dëkk bu mu fonk muy dëkk boo xam ne lu bari def na ay tag yu bari bari ci yoonu Saalum Sam def ci ay ay xasit yu bari yoo xam ni dégg nga mi ci def ay ay ay sikar lu maanaam bëggoon na ku nekk Touba war ngaa wormaal Touba ku nekk Touba war nga war ngaa wormaal ki fi nekkal sëñ Touba. Mm-hmm. te képp koo xam ne nekk dëkk taalibe laa foo mën a nekk waxuma laa nga nekk biir tubaa di am lenn looy xebet wala lenn looy critiquer ci ki fi nekk Sëñ Tuubaa góob taal gëmoo dara da ngay wax rek mm-hmm. jamono nag yàqu na te li ko yàq lu bëree bëri politique ko yàq politique yàq lu bëree bëri mu ngi yàq positif fu ñu bëri te xamuñ ko te te te ñu leen koy yàquloo amuñ leen leen benn njëriñ wala luñ ciy am weccal lay doon waxoon ni fii lay yem mm-hmm. kilifa da koy respecté kilifa da koy bëgg mm-hmm. te day am kilifa baax na lool te ku xamoon am kilifa dañ ne sax doon kilifa am kilifa gon mhm. ndax boo amee kilifa am nga foo wéeru mhm. te ku amut foo wéeru bu lay laal ngay daanu mhm. te it bala nga xam ne am kilifa am na solo bis ñëw boo xam ne bisu njàqare la wala jaaxle nga am kilifa te kilifa ga mat ko yàlla mën la caa dimbale ba nga génn ci wala nga nekk koo xam ni nit matut nit dafa lompoñ ndax fi mu toll nii mat mat kenn defu koy mat ku ko def bëgg jël cëru yàlla yàlla rek moo mat kon war nga am kilifa goo xam ni kilifa gu gu dëgër yàlla la ëllëg yowmal xiyaam te kenn ku ne xam nga faatu dana ñëw te te daanaka kenn ku ne booy seet li gën a ëpp ñi li li paas seen dund moo ëpp li ci des te ko ci dem yowmal xiyaam te fekk ne xëy na na nga waroon a kii kii ko na nga waroon a doxee doxee woo ko woon ci sa diggante ak sa borom bu fekkoon ne amoon nga kilifa goo xam ni jox nga ko jël yàlla mën na la ko rusi jégal ci yërmandam waaw waaye nag loo liggéey doo ko jëriñoo mm. dëkk bi dañ ko war a jox worma wormaal ki fi nekk sëñ ki fi nekk sëñ tubaa dégg nga dëkkub alxuraan la dëkkub jaamu yàlla du dëkkub mooy dëkkub tooñ dëkkub sutura la kon ku ko jox war ji nga ko war a jox sa bopp nga ko jox rek ndax sa ceeb lay diswaat ku ko jox du tee dëkk bi mel ni mel mm-hmm. ku ko jox du tee ki fi nekk sëñ Tuubaa mel ni muy mel ba pare sëñ Tuubaa la am am na ko pare kon lu fi waaye def ci lu baax sa bopp doo nga koy defal defaloo leen lu fi waaye defit du la fi ñuy tëjee question bi euh, xam naa ne actuel sax actualité lay doon parce que amaana for nañ si laam si si weewu béy ñu ne daanaka daan nga tukki euh, mu nekk biirum clandestin yi ñi nga xam ne ñu ngi jël mbëkk mi di dem gaal gi tey ñooñu soo leen doon digal lan nga leen digal. man du ma ndax man tukki naa man Amir googu def naa fa trente trois cent fii may waxee nii. citoyen américain la lu dul lu président mën naa koo nekk Amérique mën naa faa nekk mën naa faa nekk gouverneur lépp bu ko sama njàng àggee mën naa ko nekk. Mhm. président daal laa fa mënut nekk ndax mu original américain yàgg naa fa fa nekkoon ak sama ak sama njaboot def naa fa fanweeri at ak ñett kii toog sama wet fekk na ma fa kii ñoo bokk benn at buñ fa demee maa ngi kon man xam naa li ci tukki te ba may dem jaaruma ci. bato jaaruma ci fenn damaa dem yàlla dogal mu jox ma visa ma dem ma dem sama bopp ba ba mën a yóbbu sama njaboot sama njaboot yóbbu ci kenn muy dem ci clandestin yi ci yoon lañ jaar ñëw kon man la ma defoon loolu lay digal nit fii nag digg naa nag wax ji bari na parce que sànq maa lay toll naan naan boo may laaj laaj ma loo xam ne <laughs> duma duma ci ay jël ay saaga ndax réew mi léegi loo wax lu nekk rek daanaka ay saaga yaa ngi topp si ginnaaw dégg naa ñu naan ñi naan euh, xarulaak ñi naan ku ko waxoo dëgg ak coow li bari na. Mm-hmm. waaye man wax dëgg yàlla lépp loo xam ne nii boo ko defee mën nga caa dee dégg nga te yàlla tegulu ko boo ci dee da xam man ko digal kenn kenn laa ko du digal waaw nit nag kenn ku ne yaa sa bopp waaye nag nit dafa war a xam dafa am valeur mm-hmm. ndax yàlla li mu lépp nit rek la ci jël ci alxuraan teg ko nee ñu maa ko bind maa ko teral wala bu tukkoon lu ma bind lu ne teral doomu aadama tax ma def ko kon nit bu mu fooyee boppam te it nit fépp foo nekk ci àdduna boo sababloo ba boo sababloo yàlla mën laa lu jox ko sa wërsëg te fi ñu toll gis nga yàlla du du du defal nit lu yàlla li nga man yàlla du la ko defal de dangay def li nga man bàgg foo xam tëlën ko yàlla doolu participer defal la nga mënul li nit ki nekk ba dajale ci 10 millions wala moom ci 8 millions te yow yoroo kër yuroo jabar yoroo dara boo ci continuer mën ngaa am leneen lu ëpp loolu kon nañ dellu si waat xëy te it euh, wërsëg kenn du ko forcé kenn du ko forcé waaw yàlla moo nekk fépp benn la du nekk ñaar amul nekkut Amérique nekk Séné bu nekk Sénégal benn suñu borom la te kenn ku ne sa wërsëg bind na ko avant avant ngay ñëw àdduna kon kenn ku ne foo nekk sabab loolu ci liggéey te loo am nga bañ koo yàq te ñaan barkeel te nit ñi ni ñuy def bay tukki nga jàpp nañ yow war nga ko mën a nga jaar fa ñu jaar rek ñaani ñaani visa waaw bu ko yàlla dogalee ci yow tam gën ci yow dan la ko jàpp na nga dem waaye man daal duma ma digal kenn koy jaar ci bato du ma digal kenn koy jaar ci ay ay jaar ay frontière yi ma daal du ko digal ku jógin nag ba nga xam ne sa xel mel na ko ngay su borom mi musal yàlla na yàlla musal àggal la fa nga daal du ko digal man te àdduna ci jërëjëf euh, mu nekkoon Serigne Sam Bousso euh, dañ koy bàyyi mu tàggatoo ak téléspectateur 7TV Serigne Sam. li may tàggatoo daal mooy sant yàlla bu baax te ñun ñëpp dañoo war a sant yàlla ndax taaw toogoon ni fii def waxtaan lu mel nii ñu fekkewaat ko fekkee moom suñu borom rek moo ko mën a defal lu muy yaa kenn mënu ko fexeel sa bopp kon bu ñu yàlla maye ñu fekkee fekkewaat dañ ko sant te ñaan yàlla ñu fekkewaat at yu bari màgg gi ñu ngi jublu si ndax benn bis rek moo fi jaar. ñu ñu ñu ñu ñu xaar ko te xaar ko ci niñ ko war a xaaree xaar ko ci dëkk bi laaj xaar ko ci li nga xam ne borom dëkk bi moom la sañ ci dëkk bi borom dëkk bi moom moom la dundee ba wan ñu ginnaaw bàyyil ñu ko fi bàyyi fi njabootam ñu nekk ci muy diine ak wéetal yàlla bañ a bokkaale yàlla dara nañ moytu bokkaale Sëñ Tuubaa tere na ko ba tàyyi nañ wéetal suñu borom te xam ne ay jaamu yàlla lañ te xam ne yàlla indiwuñ fi ngir bànneex wa ama bi nimati rabbika fadis yàlla nag bu la joxe jox bu la joxe xéewal xéewloo ko sant ko waaye bu ko def ci sa xol yàlla munta munta nekk bokk ak munta bokk ak lenn nekk ci xol àdduna ak yàlla munta bokk ni ci xol dañuy faatu day dikk te gaaw na te suñu borom borom du ko tàggu kenn te kenn ku ne yàlla wa wa kullum aati yom xaan fada kenn ku ne yàlla dana wéet ak yow audience boo xam ne da nga jàpp ne yow rek danga la bind ci àdduna loolu lu mat bàyyi xel kon nañ jaamu yàlla Sëñ Tuubaa nee na bëgg àjjana joo jaamu di yàlla ak ku bëgg teraanga joo nangu te liggéey seeti ko feneen waaye amut fii ci man kon nañ jaamu yàlla def la Sëñ tubaa doon def ak njaboot ne ci te bañ a bokkaale yàlla kenn te jéem a jàng nag ni ñi jaamoo suñ borom jéem a xam farat yi jéem a xam sunni yi jéem a xam man man dubaat yi makaraat yëpp mu jéem ko xam mag ndax boppam téléphone yi yàggu fi te fii ne téléphone bi ci paan xale boo ko jox mu defaral la ko kon nañuy def bay xam téléphone yi bu yàqoo lu da nga xam ko dugg fii génn ku ko sa diine ñor da xam sa diine te mag du nax boppam te ñun suñ biir nañu yéenante jàmm di rafet te njort di waxante lu rafet bañ a mucc naafiq ànd ak sa morom mu wax nga tàpp kafree mu woon la ginnaaw nga yàqu bu dërëm loolu nañ ko mu loolu lépp gis nga fi bu ci waay def di des si cëw képp yàlla naa naafiq lu ma tam moytu la parce que nee na sawara ëllëg sawara fa sawara yem fa lay def naafiq ñoom ñu kon nag lu ma tam moytu la maa ngi jégalu ñëpp lii ma wax fii lépp nag sama bopp laa commencé ak njaboot li ma yàlla booleel ak képp koo xam ne dégg ko rek jublu ma ci dara ndax jamono ji ñëpp waxee léegi la wax ñu jàpp ne leen gi jublu yàllaa doog ngeen ñëw fi ñuy waxtaan waxtaan diin la may wax yàlla may wax rek ma ma wax du ma du ma waxi sama bakkan bu ma demee bay bay bay waxee leen dama kon man dama jël sama responsabilité bopp seet fa ma fa ma bëgg a jaar mu jaar fa waaye duma ko wax ñëpp di ko dégg ma ciy xeer keneen ndax mënu maa xeer sax keneen ci leen ma yàlla rek tax ma di ko wax sama bopp laa ko ak sama jowot maa ngi jéglu ñëpp tey ñaan yàlla ñu ko fekkoon ak bëri ñaan mag bi fekk ñu fi bàyyi ñu fi te lépp lu ci def yàlla na ko yàlla na ko tey ñaan yàlla mosuñ ci seytaane boo dañ tarxis boo dañ def lu ñu war def mosuñ ci bët ak ak làmmiñ yàggal fi nag suñu taxaam yi lool wéral wéral ko yàggal ko fi yàggal fi gépp kilifa ak diin nag fu mën a nekk maa ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla def def ko bépp jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan kilifa gu mag gi lañ leen loon muy Serigne Sam Bousso ngeen dégg waxtaan wu am solo boobu nga xam ne waxtaan na ko fii eh, dénk ko ndaw ñi waaye dénk ko tamit yoonu murit si njabootu soxna Jaara Bousso ngeen dégg waxtaan wu nga xam ne amal na ko si Bousso bi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a safoo 7TV ngeen wéy di continuer di seetaan suñu programme set 7TV asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asiiru maa lam laarihiin asiiru wasal la ilaa anni hunaaka asiiru